ami ay fidèle internet ñuy seetaan à travers plateforme yi fi nekk ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal ak jàmm euh, ñu ki ñu jàkkaarloo tey nekk nga xamante ne moom moo di Youssou Dieng suñu nee Youssou Dieng dañu naan Wally euh, nga xamante ne moom moo di grand théâtre ñu waajal li nga xamante ne moom moo di bal des Faramareen ba tax na tey ñu seet ko na la waxtaan ak moom lu jëm ci bis bi waaye tamit lu jëm ci actualité Youssou nuyu naa la amee soxna fa sant ñu lay fay bu baax a baax a baax a baax di leen bégee di kontaan ci seen teewaay gannaaw yéen ay laaxarti kenn ngeen fa waaye na ngeen laaxarti ko <laughs> ñu lay bëggee bu baax a baax alors mu nekk lu am solo ñu sut ngeen nar a def li nga xamante ni moom moom di bal de Faramaren di boobu ba léegi ñu koy préparé date yu bëri na waaye mu nekk date boo xamante ni bu spécial la euh, naa que ni gis li ngeen takkootee ji dina xam lu mel noonu naka ngeen ne koy préparé waaw gis nga ko xam nga date yi moom bëri na waale moom euh, ci li nit ñu miin ci moom mm-hmm. tubaarkàlla bu décembre jotee gis nga ne day def tournée bu am solo mm-hmm. à travers le Sénégal génn dem Gambie. Mhm. ñëw def quelques régions. Mhm. ah mais gis nga tey. ñu mhm. euh, ngi fii ci. esplanade bi. bi. di waajal la ah, parce que ku nga xam ne 31 décembre su Faramaren yi la. ah muy Faramaren yi ci réew mi yëpp ñooy dajale 31 décembre ànd ak Wally seen seen seen seen woykat seen artiste. seen soppe ñu jeexal at bi ci jàmm ah ci ambiance nga gis euh, lim ciy def ci spectacle lim ciy def ci innovation ah nga gis euh, gars yi def d' artifice yi ah, muy ambiance boo xamante ne gars yi dañ ko miin ci Wally donc li tournée bi am am am am solo yëpp li koy tëj Ndakaaru la donc comme Ndakaaru lañ koy tëjee nag c' est mhm. normal ñu jox leen yëpp li nga xamante ni moom la ñu miin moom la ñu tàmm mhm. waali moom la leen tàmmal moom la leen raam daan tàmmal donc moo tax gis nga ko ñu nekk fi di di di di di assister li nga xamante ni mooy wàccaay ah gars yi di ay jàmbaar nag nekk ci bopp ba léegi di travail guddi ak bëccëg mhm. donc ñoom laay njëkk sargal di leen féliciter ah di leen jaajëfal ah, di leen tatagal ndax mhm. li ñuy def yombul damay faral di wax événement dafa metti bala nga naan mbooloo mi ba mu fekk nag dee nga. d'accord ñi nag mooy ñi nga xamante ni kenn du leen gis. Mhm. te coow li coow li yëpp ñoom la ñoo nekk ci ginnaaw. ñoo nekk ci ginnaaw ñoo ne ci kanam parce que ñoom balaa kenn bi ñëw ñoo fii ne ñooy def installation bi ah. Mhm. gis nga fii mu nekk nii rafetul ci ci bët. Mhm. mais fii ak ñaari fan boo ñëwee di nga am neexu di ko xool donc ñoom ñi koy def kenn du ñoom ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax waaye félicité Faramareen yi félicité waali balaa ko le leader ndax dafa ñeme mhm. investir chaque jour dañuy bëgg def lu extraordinaire mhm. et pour def lu extraordinaire ay moyen moo la koy may donc bu ñu tolloo foofu mhm. moom day day day def sans hésiter day def xam nga ak ak xol donc moom tamit ñu ngi koy ñaanal jàmm di ñaan yàlla yokk ko wéral ah sàmm wërsëgam ba nga xamante ni tubaarkàlla yu mel nii bu jotee rek mu mun ci def lu am maanaa ba nit ñi buñ ko gisee bég ko rawatina faramaare yi alors mu nekk am solo mais dañu gis li nga xamante ni moom moo di décembre bi waaye daf ko accaparé bis bu nekk rek ak li nga xamante ni mi ngi ko euh, woon joxe mhm. yi bu na ko xewal na ko bëri na loo xamante ni nit ñi doo taawuñu ci topp artiste dañ ciy topp waali bëri na loo xamante ni mhm. vraiment miinuñu ko woon entre euh, lépp le le peuple wala le euh, public ak ak ak ak ak seen artiste mhm. mais ak Wally euh, mhm. les gens ont envie de le faire donc loolu mhm. euh, ci dal sénégalais yi moo ci dal artistes yi ay artistes la ñu gis nañ seen bopp ci Wally ñëw nañu Wally accueillir na lañu ak accueillir na leen Ramadane accueillir na leen et public bi mm-hmm. surtout public bi mm-hmm. public bi accepté na ko mm-hmm. nangu nañ ko neex na leen te nag public bi ñooy patron d'accord mais mais parfois ndax Ramadane à Ramadane de recruter c'est à mooy mooy à Wally de décider c'est à Wally de de njàpp ñëw maanaam si biir Ramadan waali waali waali moo ko abuyé moo tax ñu daan tudd parce que gis mu dara nëbbuwu ci le question yi nag man damay damay bëgg ñu poser question yoo xam ne dafa nëbb lii leer na nañ live la yéen a ko jël mm. yéen a koy publier ñëpp a ngi koy gis mm. donc lu lu lëndëm amu ci tu vois lu lëndëm amu wax naa ko waale waale tontu na ko ëmb di wax naa tontu na ko donc. tout est clair <laughs> mais Youssou parfois sénégalais dañuy wax ni que kii di Ndeye Ndiaye Banaya ak Awa Banaya mhm. dafa am en jalousie boo xamante ni am na seen diggante ci mhm. ci kaw seen bi maanaam concurrence boo xamante ni dafa un peu déloyale mhm. naka nga gisee loolu. ah mais loolu dara nekk ci concurrence fi lañ ko fekk. wax fa dëgg yàlla bu dee sénégalais noonu lañ ko gisee. man de gisuma loolu. ñu ngi ànd di fecc. Euh, Awa passe beaucoup plus de temps ci scène bi que Ndeye Ndiaye Ndeye a une seule donc euh, gisuma loolu de man. Ndeye Ndiaye benn morceau rek la am. Ndeye Ndiaye bànn yaa benn ah, hmm. morceau rek la am benn morceau rek lay fekk. Ah, xaw ma <laughs> peut ci benn morceau bi la sentir boppam. nan ngay tontu nan ngay tontu suñu naan fu mu toll nii maanaam waa Subatel rawatina si Diop day defar. Ah, waaw waaw dara dara dara nekku ci yéen a ngi nii da ngeen ne ci fenn <laughs> am na ñuy defar Sidi Lamine moo fi nekkoon di defar journaliste yi ñeneen ñuy recruter du fi du fi gan dara du fi bees <laughs> mais loolu dafa naqari waa Sonatel ah, ah, waaw waaw c'est normal leen naqari ñun luñ ci mën alors <laughs> maanaam yóbbu maanaam di choisir non non non d'où vient les choix waaw dissuader à li nga xam ne maanaam suba teel a nekk pourquoi dem nañ jël ay dama laaj Youssou Ndour kuy Youssou Ndour kuy fecc katam waaw bu ñëwee ci waal yi day ñëw souvent fecc y a pas eu mm. les gens li am xam ngeen ko gis ngeen ko leen créé lu amul. maanaam ñoom ah, voilà et bu ñu ñëwee loo bëgg ñu def ñu ne leen non. mais ñu waaw waaw léeg-léeg affaire <laughs> ne damaa bëgg ñëw si yow. Mhm. foofu mun na ko mun na xaw a maanaam. mun na ko bul ñëw non non mun na ko bañ a mais après. Mhm. mun na ko maanaam waxtaan seen biir. Ah. ne ko dama delluwaat si Diop parce sama rakk te yow da am ah. importance. moom la moo tax waa ah. Sèye si si waxu leen ne waaye du du du bàyyam. waaw loolu la daal ngeen bëgg léegi lu ngeen bëgg. du bàyyi mais ay ay mbokk mbokk sama. waaw léegi loolu day day day day leer nit ñi xam ne lii moo am ñu ngeen ngeen ngeen ngeen wax loolu quoi et tey du émission nag gars yi parlons de l'événement mais mais mais ah, voilà léegi man nag euh, lu ma ciy wax man rek la concerné tu vois ngay wax ci nga xamante ni moom moo di Omaro ginnaaw bi nga yëkkatee say kàddu euh, jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di euh, ñi bokk raam daana ñi fa bokkul mu mel ni que da cee gis boppam ba yëkkati ay kàddu jëmale ko ci yow naka nga gisee loolu. waaw Omaro de xam nga lu ma koy waxe mhm. dara. dara. xaw ma jot de. amoo jot amoo jot Omaro. aw ma jotu amoro aw ma jotu tontu. lan moo aw ma ko je passe temps. kon li da nga koy confirmer. événement bi sa loxo la nekk lan laa wax non événement bi nekkul sama loxo. non da nga ne comme ci. bëgg mu leer. non dañ ñëw ci yow. événement bi nekkul sama loxo. fii ay nit a ngi fi boobu ba léegi di liggéey. Mhm. yéen a ngi gis Baye Sall yéen a ngi gis Fat Bintu yéen ñi war a liggéey ci événement bi ñi ngi ciy liggéey macha allah. Mhm. loolu tâche la boo xamante ni wax fa dëgg yàlla lu am maanaa la. man li ma yan woon ci faramaareen yëpp bu ma gisoon ku ma ko yan mhm. <laughs> bu ñëwee ma yan ko ko ci xol bu sedd guy ndax amatuma jot bi j'ai des événements j'ai des projet j'ai d'autres choses à donc euh, aw ma benn aw benn euh, problème pour kii moo fi nekk ak kële moo fi nekk amul problème parce que fépp nga ne fa yàlla rek ko man d'accord alors da nga koy bàyyi mu toog. Ah. mais mag ñi bu nekkee di wax rek bu génnee du baax. ah déggul baax Amadou du ma ko wax dara xam nga jot du tontonteeg Amadou yow tamit nag xam nga ne du ma tontonteeg. doo moromam wala du ma moroma. da nga bëgg mu nekk moroma. doo moroma Amadou nijaay la may woowee nijaayam la hmm. waaw doom non nijaayam la. mais yow su souvent man jaboot naa rafetlu ma rafetlu ma ay doom. ay doom waaw yàgg na maa ngénte tubaar yàlla bëri naa ay doom. <laughs> sama doom yi ma jur doy nañ ma sëkk comme doom. Hmm. bàyyoowu ma kenn. alors yooyu sa souvent dañ doon gis soxna ay dara ci événement yi mu ne surtout 31 décembre bi daf doon takku di ñëw mais daf dañ ko gisagul lan moo. 31 bi jotagul de. ñëwagul mais da euh, tey yéen ñëw. soxna est derrière tout ça. elle est derrière tout ça donc euh, soxna a deux dates c'est l'anniversaire et le 31 décembre. donc euh, ba waa léegi gisoo ko fi. waaw waaw xam naa dox waa Faramareen nag noonu la. léeg-léeg ma toog sama kër di di di wax dafay leen nii muy dox tu vois léeg-léeg ma am jot ñëw xool fa mu toll ah s'il s'agit de de de de de prendre les dates de de lu mu mën a doon ah léeg-léeg ma toog sama kër di ko def léeg-léeg ma jóg dem doxi ko léeg ma wax diw demal def ko ah Baye Sall demal lijjanti luy waay lii la ñu soxla mu dem dox ko comme man maa mën loolu nag maa sa soxna ak ay ak ak waali mm-hmm. Youssou Dieng lii lañ soxla sa xel taxaw ci waaw ma ne ok dinañ ko defee nii wala nañ ko defee nële. mais le derrière tout ça macha allah. alors amul et le jour J bu soobee yàlla di ngeen gis ne. Euh, elle est là. elle est là incha allah. alors le 31 dañu gis à chaque fois euh, waaye doon toog maanaam ay jour ay jours yu bëri du tëdd. mu hmm. am benn énergie bi nga xam ne bu ñëwee maanaam fan sami dañ ko gis. par rapport ak bii nii maanaam bu 31 passé ko. dem si yàlla Papa Thion dafa gaañoon mu toog ay ay mois mhm. par rapport ak bi xam ne chaque deux jours mu daal est ce que loolu am lu muy waaj mais fan lay joué il n'est pas à Dakar